nuyu am mbégte dalal la ci démb ak tey dalal ak jàmm. Ah, maa ngi lay fay Fatou eh, di la gërëm de nouveau si li gën a boole ci mbir yi. Mhm. jërëjëf yow itam ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi alors euh, ni ma ko wax Ibrahima Sène li ñuy waxtaanee euh, mooy euh, teewaayu armée française ci Sahel lana indi woon France mu yónnee fi ay takk der ci zone Sahel bi Mali rawatina. waaw li ko indi woon moom 2012 la commencé parce que euh, bi France dalee ci kaw France ak Angleterre ak OTAN bi dalee ci kaw Libye tas Libye rey Kadhafi amoon na ay euh, malien yu nekkoon foofu ak Kadhafi doon ko jàppale Maliens yooyu la Sarkozy à l'époque Euh, ngem yóbbu leen euh, au normal yi région de Kidal bi hmm. leen fa yóbbu ak seen gànnaay président euh, ATT moo fa nekk Amadou Toumani Touré ci taxam yow la Maliens yi nekkoon ak Kadhafi ak seen aram ak seen bagage yëpp ñu yóbbu leen ñu dellu seen dëkk hmm. nord Mali Kidal hmm. ndax Euh, pour résistance pour libyen yi daan yi doon xeex euh, contre France pour seen doole wàññiku mu taxan mu yóbbu ñooñu ci kaw euh, ci biir kii daal a ah, bi ñu fa yóbboo ale yooyu jóg ni ñoom seen région dina ko bëgg a jël wutal ko indépendance coow li di kur ñoom ñu jóg rek dal ci kaw soldats yi mali yi nekkoon foofu rey ci ñu bari lëkkaloog euh, kuréel yi nga xam ni ay islamiste la woon ñi ay islamiste ni ay ay bandits de grand chemin yi nga xam ne ñoom joroon jël ay otage di ci lekk xaalis ñooñu la waa euh, euh, tuareg yooyu yoroon ton seen organisation tuddee ko mouvement de libération nationale de l'Azawad Azawad mooy le nord du Mali ñooñu euh, bi mu àndee nag ñëfe ba dàq soldat malien yi ci seen région pour proclamer seen indépendance Toumani Touré toog rek di yàccaar le président malien toog di yàccaar or réew mu mëntonti doon kooku dafay porter plainte France ndax moo indi ay soldat ay nit ñu yore ngànnaay ñooñu dem jóge Paris taxaw Paris ni dañuy dañu proclamer seen indépendance indépendance bu réew mais Mandela bi mu waxee indépendance maintenant pour gouverner zone boobu euh, euh, jihadistes ëpp ëppale doole duma leen dàq leen rey ñu bari ci ñoom ñu daw euh, Compaoré à l'époque moo nekkoon président Burkina Compaoré ñëw wallu leen yóbbu leen Burkina ñu toog fo maintenant jihadistes yi nag ni it dañuy continuer xeex bi pour jël Mali foofu nag le soldat malien eh, gis ni Amadou Touré seen président faalewul li xew ci réew mi soldat yi ni rey ak mali yi rey ci nord bi faalewu ko moom li li mu tolloon mooy mu doon préparer que puisque nguuram day jeex mu préparer élection pour que koy wuutu mu doon élection yu rafet nga xam ni dañ ci ñëpp dañ mën a wax ne voilà vrai ama amaan Toumani Touré moom démocrate la gisa bu mu jeexalee dafa organiser pour ay élection maanaam image boppam moo ko ñoroon moo ko loolu nag la soldaar yi mer moo tax ñu daaneel ko jël nguur gi ni dañuy fépp mobiliser réew mi waa réew mi askan wi pour xeex Euh, euh, ñi indépendantiste yi nekk au nord loolu bi ñu ko defee euh, France mer daa daa di laaj UEMOA xam ni kuréelu pays africain yi nga xam ni ñu ñoo fekk CFA fii ci soow jant ni leen nanu sanctionné militaires yi ndax coup d'état bi ñu def charte UEMOA nanguwu ko charte CEDEAO tam nanguwu ko CEDEAO mooy kuréel gi gën a mag bi euh, réew yi nga xam ni sow jant la na bokk mm-hmm. ñuy francophone ak anglophone ñu bokk CEDEAO bi ñu ko defee nag CEDEAO ak UEMOA dajaloo rapidement ñu sanctionné Mali suspendre ko économiquement def blocus arme yi yi ñu jëndoon moo waroon ñëw ñu def ko ñu téye ko de de ak euh, ak Freetown ñu eh, ñu wax Sarkozy ni leen ñu doon dem euh, libéré eh, Mali eh, soldats si ñu daax ñu jëlee leen fa pour que pouvoir civil dellu si ñu def pour ñu def élection yi normal waa CEDEAO ak waa yooyu d'accord ci loolu ak Sarkozy ñi nag ñoom balu ñu xeex ak jihadistes soldats yi Mali dañuy xeexal jël leen ci nguur gi ba pare. Hmm. tax fa tax fa ay civil civil yi mën a seet muy def foofa la euh, euh, Sarkozy nguuram jeex Abdoulaye Wade nguuram jeex Macron ñëw non du Macron ki Hollande Hollande egsi Hollande bi mu xam ni ne euh, jihadis yi ñu si Bamako euh, président intérim ba fa nekkoon Diakounda euh, euh, mi nekkoon Mali nga xam ne moom la waa CEDEAO imposé militaire yi ñu dégg kii mooy seen président yéen doo leen nekk doo leen diriger transition bi kii mooy seen président président boobu daal di woo Hollande ni ko kaa jàppale jàppalee la France envoyé armem pour dire ko opération Serval li gën a yéeme fi mooy France bi muy ñëw di dimbali Mali pour libérer eh, le nord des djihadistes dafa aw Burkina dafa wax waa Burkina ñu jël eh, waa MLA ñi nga xam ne ñoom la Sarkozy ñemboon pour ñu eh, nekk fële au nord yor ko ni kon boog ñii ñoo ñëw ànd ak man pour ñu libérer le nord. Hmm. bi euh, MNLA ñëw ak arme ànd ak France France jiital leen Mali eh, ci ginnaaw doo leen eh, zone bi doo leen fi dugg waa MNLA ñoo ñoo koy libéré ba MNLA ñëw ñu toog toogaat ndax jaadi si dàq nañ leen ñun ñu toogaat yor région boobu euh, ñu ne nag kon bokk pis yor na région boobu nanu euh, def ay négociations pour am accord de paix avant négociation yooyu ñu def ay élections Ibrahima Boubacar Keïta gagné pour nekk président kon euh, te pour mu nekk président militaires yi ñoo ko jàppale jàppale bu dëgër ndax militaires yi bëgguñu woon te gën a jege France bu doon Soumaïla Cissé léegi gàññu na nekkoon président commission euh, de l'UE de de l'UEMOA muy zone francophone bi mm. moom moo nekkoon président commission kooku jege woon te moom moo doon lëkk moo doon xëccoo gi ak IBK Ibrahima Boubacar Keïta donc militaires yi ànd ak Ibrahima Boubacar Keïta pour mu gagné yaakaar ni bu gagné dana euh, mobiliser réew mi ñu jële fii je euh, euh, pour vraiment libérer le pays restaurer Euh, l'intégrité territoriale au nord ñoom loolu lañu foogoon te loolu la IBK tam digle woon mais bi mu bi mu nekkee euh, bi mu jëlee nguur li mu njëkk a def mooy arrêté lu ki nga xam ni te jàppale ko dëgg dëgg dëgg mooy capitaine Sanogo capitaine Sanogo boobu France moo ko jàppaloo ndax moom euh, taxawin bi mu taxawaay mooy ñu dàq nanguwaat ci loxo MNLA ñu nanguwaat euh, région nord Mali bi xam ni moom la ñoom la ñu ak foofu nag bi ñu ko bi ñu arrêté lan wax ne naan dem def nekk de paix hmm. à Alger bi mu demee def négociation de paix lan fa a fa jógee euh, dara wax ni pour ñu appliquer ko dañuy def référendum changer constitution Mali ndax constitution Mali dafa ni ah, ah, région yooyu du am du am autonomie du am indépendance mais accord de de paix bi IBK signé dafay jox autonomie boo xam ni région nord dafay niroog indépendance ndax sarti euh, yi ni ñu ko tëralee boo ko gisee Eh, eh, vraiment yéeme na mënuma dugg ci biir eh, ndax day guddal mm-hmm. euh, mbir mm-hmm. i bayka mm-hmm. bi mu signé accord yi au lieu que mu soumettre ko assemblée nationale déedéet wala mu organiser référendum soumettre ko euh, au peuple pour adoption déedéet moom nag mu ne da koy ndax xam na ni waa Bamako waa Mali d'accord ñu ci accord bi mu signé ñàkk d'accord boobu nag moo indi eh, tërëf tërëf ci nguuru IBK ba français dañuy eh, appliquer accords yi par force Nations Unies jàppale ko ci jàppale ci France CEDEAO jàppale ko ci Union africaine jàppale ñu dañu appliquer eh, résultat yooyu par force te accord bu ko defee euh, euh, normal yi dafay xaajaloog bari loolu nag moo tax askan wu daan jóg di manifeste di manifester ba euh, militaires yi mujj ñëwaat daaneel ko nangu nguur gi. moom IBK. Mm-hmm. kon daal Ibrahima Sène waaw. bi militaire daaneele IBK mhm. euh, CEDEAO tam jugati ni leen da ngeen di delloo IBK ci ci ci palaasam mhm. mais militaire ñoom ñu fexee ba IBK démissionné bi muy démissionné dafa démi dafa abord dissoudre assemblée nationale daal di démissionné donc gouvernement bi démissionné en ce moment là kenn mënatul wax ni danga ko fa tegaat ndax démissionné na loolu moo tax CBAO ni quoi qu'il en soit yéen doo jiite force civile mooy jiite eh, eh, mooy jiite mooy jiite réew mi pour que euh, réew mi pour que transition bi e jëm ci defar ay élections yu bees kooku ay civil ñoo ko yor daal di ci sax ay sanctions suspendre encore Mali ba Sénégal Euh, ni suspension bi daal bu mu bu ci. koom-koom bokk dund bokk. Mm-hmm. bu ci comme bu ci médicament bokk garab bokk ndax loolu euh, vraiment ñun ñëpp surtout raw na Sénégal lëkkaloo bi mu am ak euh, Mali ci commerce lool bu amee dana gaañ Mali mais dana gaañ aussi Sénégal loolu mu Euh, euh, sanction yi eggul bu foofu mais terewul sanction yi métti woon na trop euh, ndax Mali mëntul am financement mëntul am dara mais bii ni eh, problème bi nag àll àll problème bi dëgg-dëgg accord yi accord de paix yi ñu signé woon Alger fan lay mujj na ñu nga xam ni moom la militaire yi d'accord ak CEDEAO ni ñooy yor nguur gi mooy Ba ak premier ministre euh, Omar Wane ñoom ñu euh, ñu ñu teg France pour appliquer accord yi loolu nag euh, militaires yi mën mën ci woon d'accord mënuñu woon tëb tëb boo xam ne ci d'accord mais bi ñu ba jekku ñu randal leen fële eh, daal di bi nag léegi bi nga ñi doon xeex pour que IBK jóge fi ñooñu ñu la lay àndal ñu civil yooyu pour yore transition bi. Hmm. mooy waa M5. loolu euh, loolu bu ko France gisee xam ne ñi doon xeex IBK seen xeex lan na fi armée française jógee. Mhm. ñun bëgguñu euh, bëgguñu accord d'Alger force suñu seetaat ko. ñooñu bu ñu ñëwee ci ànd ak militaire yi France xam na ni dootu fa mën a des surtout que population bi saa saa su ne ñuy manifester toppoo France na dem nañu bàyyi ndax bi fi nekk ba tey amuñu jàmm xeex bi jéye bi ci eh, bëj gànnaaru Mali nekkoon wàcc na ba egg ba ci. ba ci suuf jigéen bët gàññaar ñëw ba ci sud ba ci centre kon bokk France lim fi lim fi lim fi nekke nii day dañuy dañuy jàppale tey na xel kon bokk daf jóge kon France dafa xam ni yàgg yàgg daf fay jóge ndax ñii ne ci nguur gi tey duñ ko fa bàyyi moo tax mu jiitu daal di lem ay bagaasam euh, déggul sax ba di former gouvernement bu bees parce que xam ne li fay li ci. fay fekk jur lan la. Mm-hmm. xam ne moo tax mu ne voilà d' abord day suspendre embarration bi mu amoon ak ak Mali sur le terrain faliwul ko mu xam ni fii itam euh, day day sonal boppam rek moo tax mu ne mën na day arrêté opération euh, Barka Barkhane. Mm. bu arrêté opération Barkhane. opération Barkhane du Mali rek la concerné concerné Burkina Faso Niger Tchad Mauritanie kon boog bu Mali taxee ba de day arrêté kooku problème la parce que li ko wóor bu wóor Maliens yi eh, bu seen gouvernement bi taxawee doot du nangu France euh, di def lu mu daan seen réew ak armée doot du ko nangu. Hmm. léegi loolu loolu nag moo nekk nag nii maintenant France kat nee na wala dana dindi baraxaan dana bokk ci armée européenne bi ñuy tabax bi ñuy defar pour que euh, ñu ñëw continuer dexaak jihadistes yi mais maliens yi tontoogul de mais li wër ba wër mooy euh, armée malien ak gouvernement bi euh, ñoom accord de paix yi ni mu tëddee daan na ko et deuxièmement pour jàmm am ci réew mi seen réew ñoo am ñu ni groupe armé yëpp la ñuy waxtaanal pour seet nu mën a juboo pour gan ñuy jëm ci Mali Mali eh, nekkaat ak boppam le nord dellusiwaat ci kilifteewu kilifteewu eh, pouvoir central non loolu mooy seen taxawaay hmm. te loolu nag la France bañ France waxoon nag kenn du discuter ak groupe armé ba ay ay jihadistes la ñu euh, accord euh, d'Alger pour que euh, le normal yi moom boppam. lan mooy intérêt France ci normal France boo gisee normal yi dafa lëkkaloo ak Niger fi nga xam ni fi la France di exploiter uranium. du du Normandie mm-hmm. de l'uranium de du Niger gis nga uranium boobu France di exploité moo tax quarante pour cent électricité France euh, nekk euh, di jóge ci uranium xam nga France bu perte bu perte foofu quarante pour cent électricité France. waaw sous développement lay nokk. lay mm-hmm. bu ñàkkee quarante pour cent de source eh, bi koy jox électricité. Mm-hmm. kooku. pays su développé lay doon. dëgg la loolu te dootul mën nekk puissance nucléaire ndax euh, nucléaire euh, euh, l'uranium la lool moo tax mu am arme nucléaire di ko mën a saytu di wax grande puissance la. Mhm. kon loolu moo tax mu takk ci mu takk ci bakkanam pour que waa MNLA Touareg yi nekk foofu bu nu ma amee seen bopp ñu mën a liggéey ak Eh, aaral ko eh, eh, zone boobu ba kenn dootu ko laal moom mu am affaire pour mën a jël uranium bi foofu dañuy laaj Niger lu tax muy nangu France di jël uranium bi nga xam ni da koy de mooy assurer quarante pour cent électricité France te e Niger amul électricité bu de te uranium ci lañ France di sukkandiku pour am quarante pour cent de son électricité xam nga loolu mooy wane ni sunu président yi itam euh, la yàlla xam doy na. Mm-hmm. Euh, bon mais nag yi les politiques maliens yi yi nekk M5 ak euh, les l'armée malienne ensemble ñoom dañoo décider pour loolu dàkk loolu nag mooy mooy mooy mbir bi maintenant bi affaire bi bi bi jihadis commencé Mali dafa waxoon ni dana war def lëkkaloo sunu doole man Algérie Mali Niger ak Mauritanie xam nga ñoom ñoo seen frontière ñoo seq. Mhm. ñoo seq euh, Mali bu ñu pour lëkkaloo sunu armée dan ñu mën a jàmbarloo ak ak ak ak jihadis ba am ci ndam mais France jóge ci ginnaaw. Euh, ak ak ak Burkina ak Tchad euh, ah, IBK nooy ñu ne kon bokk dañ def G5 Sahel G5 Sahel dañ ci dàq euh, Burkina dañ ci dàq Algérie dàq ci Sénégal pour que France mën a concentré wu foofu pour que waa waawam daal gën a mën a mais léegi puisque dem na puisque day dem te wóor na ma ni Maliens du duñu nangu euh, muy waxee ay ay yëfi armée européenne pour loolu du ko nangu maintenant yeneen réew yi ci des ay euh, ak France yoo defee seen armée nañu ko def mais wóor na ma ni euh, Maliens yi loolu duñ ci d'accord hmm. kon bokk li ci li ciy mujj mooy mu ñu lëkkaloog Algérie lëkkaloog Mauritanie wax Niger ne ko am am léegi Niger am na président bu bees euh, ñu ñu seet ensemble ñu lekkaloo seen armée wut maintenant euh, ñu leen dimbali ci arme parce que ñoom nee nañu armement moo leen jafe. Hmm. dañu defoon pour que ñu bañ a am arme yu doy pour mën a jàmmarloog euh, jihadis yi bul ko si boobu ñoom fexe nañu ba tay pour ñu ñu ñu ko mais toujours France euh, mooy bu ci teg tànkam. est-ce que mënuñu ci séentu euh, euh, Russie ndax wax nañ ne moo nekk ci ginnaaw armée bu bu Mali notamment Goïta bi nga xam ne tey moom moo jiite réew ma. gis nga France teg bët Russie rek parce que du Russie moo wax Goïta daaneel leen Ibeka du moog Delhi di bëgg ndax dafa bëgg a France loolu ku koy wax France boobu lay la wut mais wër bu wër Maliens yi seen bopp ñoom ñoo gis ne France ni mu doxalee ak Touareg yi pour xaajale seen réew la pour euh, euh, gën a mën a noot Maliens yi ñoom seen bopp ñoo ko dund après ñu gis ni li russe dimbalee centre Afrique pour que centre Afrique gën di am doole gën a mën a xeex ak euh, rebelle armée yi nekk foofu den sonal lool loolu la Maliens yi gis loolu moo tax ñu russe yi ñëwal mais russe waxul bu ñëw mais ay ci condition lay doon parce que bu ci Nations Unies d'accord russe du mën dem te wóor na ma ni bu fa eggee France day def day def kon bokk na ban pexe la Russie di di mën a am pour mën a dimbali ci armement Mali kooku moom beneen affaire la xanaa ni leen soxla ngeen armement man naa leen jox armement encadré leen te lu ma ci góor góobe gar ko hmm. ndax Russie dañ def loolu wóoruma mais France moom pour lay dina xam ni moom la ko euh, waa Mali. mais teg ni bukk turu ko fa gis na dem Russie mënu gënal France lay mooy Russie ñoo def propagande corrompu ñit ni dafa mel ni non c'est euh, euh, amul benn respect ci ci ci peuple malien mais peuple africain yi fii Sénégal def na sondage yu mujj ji yi nga xam ne Afrobaromètre moo ko def France Sénégal yi Chine moo leen gën a France après Chine Amérique France Sénégal yi soxlaatuñ ko. bokk fii France la ah chinois yi ñoom ñoo ko rompre Sénégal yi pour ñu ni bëgg a tournoo France non France politique ci Afrique euh, euh, ñu ni dañ ci yew yow boo xam ne soxlaatuñ fi. justement noo gisee ëllëgu France ci àdduna bi mais surtout ci Afrique euh, France ëllëgam euh, man du ma divin du ma du ma gis anikat <laughs> xaw mais li ma ci jot mooy lii rek France fi mu ne dafa wéeru ci bay daan totalement totalement hmm. pour ñaari yëf parce que puisque Biden mi ngi mi ngi mi ngi bu dëgër ak kon bu bu ci wéeroo ci moom dana mën a am euh, fu mu pour pour mën a gën a gàllankoor ndimbal di Russie di jox Centrafrique wala li mu war a jox euh, Mali kooku beneen beneen mi ngi jàppale euh, France mu ngi jàppale États-Unis bu bu gënee dëgër ak ak Biden Sénégalais yi ñu ko bañ bañ bañ bañ dana fexe ba Euh, Chine bi Sénégalais yi bëgg ak coopérer ak moom loolu du ànd hmm. kon bokk France loolu mooy tax moo tax moo tax mu mu bot totalement ci kaw ci kaw Biden waaye li ci nekk ba nekk mooy euh, gis-gisam boobu du mën a ànd ndax lan ndax africains yi toll noonu foo xam ni eh, yeewu nanu kenn mënu leen kële euh, kële yeewu nanu li koy firndeel mooy euh, bi France euh, da dem na ba xam ni chef d'état yi mu daan woo di leen wax di leen jox ay eh, di leen wax fu li moom li bëgg. ay directives waaw waaw chef d' état eh, xam na ni mënatul defal defloo lu mu bëggul loolu moo tax mu ni léegi day jël ay intellectuel africain société civile universitaire ay artistes ñooñu ñoom la bëgg a def ñu def seen kuréel ñëw di waxtaan ak moom nan la war a mën a taxawee ba gën a dellusiwaat ci Afrique kon ba xam na ni politique yi amatul ko amatul leen njëriñ léegi moom nag société civile ñoom ñoom la ñu signe ak universitaires parce que ñun ñooñu euh, askan wi mënul mënul leen dara. waaw ndax ah, politique yi askan yi ñoo leen dul bàyyi ci yenn nii léegi. même euh, bu leen jàpp bu nekkee candidat libre ba gagné amuñu parti amuñu dara euh, man moom man mënoon dox doxal yi ñu ko France bëggee loolu la France teg ci xelam te loolu. loolu moo tax mu def wootee benn ndaje Montpellier en septembre pour que intellectuels yi mu ngi soxla ak artistes yi ak société daje ak moom waxtaan mais africain yooyu nag man lima ma ci ñaawlu mooy rek lu tax ñuy dem di dimbali France lu mu gën a dëgëre Afrique lu tax ñoom jëriñu si am xam-xam ak seen mën man dimbali Union africaine dimbali CEDEAO pour que suñu chef yi am kattan boo xam ne euh, France dootu leen mën a jëriñoo lu tax defuñu ko mais daal Macron woon na leen euh, sargal na leen béw na leen rek ñu ne ñoom ñooy dem wax ak Macron ban pexe la mën a fu nan la mën a def pour ko mën a dellu si waat gën a mën a dëgër ci sunu dëkk dëkkaan yi en tout cas yooyu pexe la Macron. yooyu euh, yooyu euh, yooyu intellectuel est-ce que am na ñun ci xam tey. ah bay bay du jox du xaaj mais de toute façon ba bu cappaandaw bi bu jotee télévision yi ak rajo yi yëpp dañu wane yenn intellectuel ñoo dem du dëgg. Mm-hmm. waaw léegi eh, am na liste yu génn waaye boo waxee liste te waa ji demul da koy tooñ du dëgg. dëgg la. kon naan bàyyi ba ci cëppaandaw ba xam yan intellectuel ak yan artiste ak yan personnalité société civile war war organisation société civile ñoo dem wuy jiko ñooñu daal ñoom nekkin Afrique waratul neex mën dellusee mhm. parce que nag loolu lu loolu dafa eh, ma mën a gën a aaki moo sa askan nga ne ko da ngay jóge loolu xel mënu ko nangu. Mhm. waaw. léegi nag ginnaaw France nee na moom dafay dem yow euh, ban taxawaay nga jàpp ni moom la euh, réew yi nekk ci Sahel bi war a am surtout réew yu mel ni Sénégal nga xam ne boole wuñu leen woon ci g cinq beeg euh, ay Algérie ak ñoom seen naka la ñu war a tey taxawee ba France bu demee euh, xëy na ñoom ñu mën a joyanti lépp loo xam ne jur na ko fi comme ndëngate. France France euh, dana génn peut Mali. mais Mali Barkhane du France du du Mali rek la concerné euh, concerné Burkina Faso concerné Niger concerné euh, Mauritanie concerné Tchad dëkk yooyu bu France mën a defaraat ak Europe euh, nu nu fa toogawaatee gën pexe bu nu xataale Mali. Mali loolu jàmm génn ñëwagul foofu de te te ñun dégg ngën temps yi yëpp ñu ngi toppoo waaw Sénégal def ndànk ndax euh, jihadis yi ñu ngi fexe ñu ngi nuy fexeel ñu ngi nuy fexeel ma ni ñun itam ak Côte d'Ivoire dañu fexe ba ñu fa ay jihadis ba nga xam ni nag ñoom dootuñu tal dara loolu di wut ku nu dimbali pour pour ñu mën cee génn kon bokk ñun bu nanu seet suñuy mbir. te Sénégal enjeu bi mooy pétrole ak gaz bi fi feeñ ñu war ko tàmbale exploité fii ak 2024. Euh, surtout bi enquête bi génnee ni Sénégalais yi bëggut bëgguñu coopération ak France. Eh, bu Chine moo leen gënal kooku dafa mel ni Maliens yi gën g bi toppoo France demal eh, Russe moo nu gënal kon boog loolu bu amee ñu toppoon léegi wala da ngeen def ndànk daal jaay di seen nit ñi jënd ngi fi bani jihadiste yi France moo leen koy moo moo ko yóbbu euh, euh, moo moo moo leen juru Mali ngir yàlla nan faxee ba France bu mun a jurul fii ay jihadiste ak Amérique bu mun a jurul fii ay jihadiste nan ci taxaw tem bañ ci am sikki sak te surtout euh, li ngay fàttali pétrole gaz du bàyyi noonu xam nga dem naa ko neex na neex na daa daa ko bàyyi déedéet ko kay karaam bi jël sa loxo de waaye ko bàyyi ko de dem hmm. naa neex naa kon fa naa bàyyi non non non loolu amul fenn ci àddina kon kay ñun ñoo war a seetaat suñu bopp ni lii mu jaral France wane wane na ko Mali kon bokk sunu gaz bi ak pétrole li ko jaral ne noon fexe ba mu jaral mu ko lu Macron nag moom mi ngi nekk à la fin de son mandat déwén ak jàmm bu sokkuwaat beneen mandat bu fi toogaatee dana wéyal politique bu fi toogaatul bu fekkee Marine Le Pen eh, moo ko remplacé Le Pen politique am mooy africains yi ak musulmans yi nan dellu seen dëkk bàyyi ñun du soxlaalu dara fii itam ñun du bu bu nu soxla ci dara nañ fi jógee xam nga France ni mu tëddee ni mu tabaxoo africain yi nañ fa yàggee gi nu ni mu nekk yow nga ni chef d'état nga da ngay ñëw da ngeen koy jëlee nan dellu nan ñibbi xam loolu euh, problème la boo xam ni France dana ko am ak bu fekkee loolu am na mm-hmm. dana ko am aussi ah arabe ak musulman yi bu fekkee loolu am na kon nag France mii may gis gisaguma fii gisagu gisaguma ci moom tànki jàmm hmm. muy Macron wala muy Marine Le Pen te ñoom ñaar kat la ñu yaakaar ni ñuy xëccoo ñoo war a ku ci gañe rek du baax ci réew ci sunu réew mm-hmm. kon bo eh, ñun nag eh, nanu seetaat sunu bopp te xam ni jot na véritablement jot na surtout homme politique yi ñoo gis ni seen askan wi jug na ñu xam ni France bu soppilul dox bu soppilul bu soppikul dox doxalin doxalin boo xam ni méngoo na ak suñuy intérêt na suñu indépendance suñu souveraineté boobu doxalin bu ko deful sunu diggante du ma du ma sa neex bopp. te te loolu moom mënuñu ko séntu ci France. gis nga gis nga mi ngi coopéré ak ñun mais tegu ju dara te imposé wuñu benn def leen di def kii def leen ak kii def leen ak kii non non non dañu bàyyi ak sunu sago programme bu nu am bu nu moom wax ko bu ci mënee dara def ko def def ko defit bu gën a rafet loolu ba tax Sénégal yi ko Afrique yëpp sax boo seetee. africains yi moom la ñu gën a bëgg américains yi ci ci coopération. Hmm. waxatuma ak ñun sénégalais mais France lanu lanu lanu teg bët lanu teg bët anglophone yi teg bët loolu moo tax euh, mbir yi demee noonu Chine euh, nootul kenn waxul kenn boo defee su ma la defalee di da ngay def nii su lan mooy so programme lii laa bëgg nan te lan la ñuy d'accord pour def ko jeex na mm-hmm. li nga d'accord mu mu nga sàmm ko li mu d'accord na sàmm ko mais du la ñëw ni su ma joxe ni nii war a def fii nga war a aw euh, fee kee nga war a waxal fii nga war a xool loolu seen du ko def te mm-hmm. loolu Amérique ak France mooy seen liggéey mm-hmm. alors Mali tey beneen beneen coup am na fa coup d'état ci biir coup d'état ëllëgu réew mooma itam noo ko gisee ak Goïta mi nga xam ni tey moo ko jiite. mais ëllëg bi bu jafe parce que France bàyyiwul mer na gis nga xam nga gaynde boo ko un lion terrible France bàyyiwul te te te Macron bu nu bu nu ko bu gën a gën toog la aalo di gën di ay. te wàllu gën di ay kon mbokku euh, Mali ak Sénégal ak sunu sunu sunu zone bi yëpp ni askan wi jógee pour que euh, diggante Sénégal diggante Sénégal diggante Mali diggante eh, sunu zone bi yëpp ak France changé pour que France gën noo wekk bàyyi nag sunu sagoon ñu liggéey ñu liggéey sunu réew kooku problème boo xam toll na foo xam ne euh, gisuma ci jàmm parce que ñun lu nu bëgg bëgg bëgg jàmm paas bëggul jàmm doole lay jaay. Mm-hmm. te wane na ko moo tax lu bay den taxaw rek fa bay den taxaw rek ma nga lu mu bëgg rek ma nga te loolu euh, mooy wane ni moom euh, day wut doole boo xam ni dana tax li nëmët ci Afrique li nëmët ci Mali loolu wéy Eh, Mali itam ba nga xam ni ñun africains itam na nga xam ni Chine mi ngi fi Russie mi ngi fi Turquie mi ngi fi Inde mi ngi fi te ñoom ñëpp am nañu kattan pour jàppale ñu pour jàppale ñu te duñu teg dara ki lay jàppale du la teg dara ak ki la ci gënal bu fekkee jàppale rek moo fi ne. Mm-hmm. kon kon euh, man gisuma ci sunu karam gisuma euh, jàmm euh, am ci diggante France ak sunu réew yi. problème bi njiit yi la wala fan la féete. waaw jàmm gis nga njiit yi njiit yi. Hmm. dañu bi am na njiit yoo xam ne dem nañu euh, ba sës ndax seeni askan dañu jóg taxaw ni loolu am mooy Mali. Hmm. kon bokk. force ñoom ñu loolu moo tax militaire yi taxaw ànd ñi doon bañ dégg nga de mhm. euh, euh, am na fu mel ni Sénégal euh, président Macky Sall du li ma nekk ak ci benn coalition yor nguur gi moo tax may wax dafa comprendre fii fii fu nu noote Sénégal bi mu comprendre fi mu noté Sénégal mu bëgg note googu nag dañ. mooy fan. dina ñu parce que ni ci bari dañoo yaakaar ni note Sénégal ci franc CFA bi rek la mais franc CFA boo laajee sunu commerçant yi. Hmm. du nootaange ci ñoom de parce que franc CFA dafa am doole doole boobu moo am mooy tax ñoom ñu mën a dem di jëndi bitim réew di indi fii di jaay di am bénéfice dafa am doole. tey mosoo dégg même fii benn organisation patronale. muy industrie muy banque muy euh, euh, commerce mosoo leen dégg mukk ñu wax dara ci kaw franc fa kon fan la ñu nootee Sénégal gis nga dama dama wax rek franc CFA noot na Sénégal mais ñoom euh, supporté noonu boobu noot ndax dañ ci gis seen bopp. Hmm. fi mu mooy ci ñaari yëf d'abord sunu alal. genn wàll gi li ñuy jëkkaan li ñuy am genn wàll gi France da koy denc ci euh, ci trésor ci ci ci euh, ci trésor mm-hmm. xam nga Sénégal sunu xaalis ci trésor du Sénégal lay ne France xaalisam ak sunu genn wàllu ñuy am ci trésoru France lay toog mm-hmm. heureusement mbir mi dem na ba léegi la fa daan toog France delloo si nanu ko fexe noonu ba mu croissance dana ko delloo si xam kooku kooku euh, euh, mi mm-hmm. am na yoo xam ni du France dana ko seqal ñu ni ko seqal mooy ak banque mondiale mooy li ñuy wax critère de convergence mooy li ñuy wax ni yow sa déficit budgétaire fii la wala yam da ngay wala yam euh, gouvernement warul doxal dugal loxoom ci ci ci ci produire ak ci ci commerce warul dugal loxoom ci production warul dugal ci commerce loolu dañ ne yooyu guta la makk gis ni taaka dindiwul ko nag ñu ngi koy nangu du du nu dëxali loolu moo tax même du fay son euh, plan Sénégal émergent déficit budgétaire fi ñu ko ni danga fay yam du fa yam ñuy xul rek euh, euh, euh, li ngay boor li ngay li ngay leb ndeyam fii yomale ko fa ñuy xul rek loolu mooy loolu mu bañ moo tax ñu am koom-koom bi ni mu jógee loolu moo tax ndax sa déficit budgétaire mooy yow am na dépense yoo xam ne waroo koo def dépense yooyu boo koy def te waroo koo def force nga nga nga nga lebi ñu hmm. kon bokk bu lépp te yemal fii Macky ni dem dem du ma yem fii te dinaa leb te loolu bañ na ba novembre deux mille dix neuf fii hmm. bi ñu def forum mondial sur le développement durable et la dette Macky dafa taxaw ni leen gàllankoor yooyu ngoon nu teg da ngeen koy dindi ndax loolu moo nu tardeel bi Covid bi ñëwee dégg nga le profito ni ñun ñëpp yéen gis ngeen ni sunu économie reset ndax euh, Covid bi mënu jóg boole eh, di fay ay bor kon bokk force ñu annuler sunu bor yi ba pays africain yi d'accord ci de dégg nga de. Mhm. Euh, te loolu bu doon wax ni critères yooyu ci budget bi ak ci dette eh, eh, Union européenne seen bopp ñu njëkk dindi seen bos pour pour mën a am xaalis bu nu liggéeyee seen réew. ma Macky ni waa UEMOA àcc leen lu tax ñuy nangu loolu moo tax ñu ne dañuy suspendre critères yooyu pour man di eh, dépasser ak di mën lépp pour faj suñuy biir pour faj suñuy soxla eh, loolu nag dañ ko cee mere hmm. ndax ndax moo ko moo ko sooke dañ ko cee mere bu baax a baax critères yooyu ne dañ et puis nan nan nan fi dindi bi hmm. loolu dana ko cay mere te loolu yooyu moo gëtën euh, euh, sunu koom-koom du leneen bon te li ma ci gën a naqari da nga gis opposition dop voilà FMI yi d' accord kontaanul ci Macky ni mu ni mu defee bor bi nu ñoom xam ñu ni eh, loolu FMI yi wax mooy sunu mooy sunu musiba hmm. foofu mun nu bëgg a yemale mun fa yemee du nu dem fenn de Euh, bi ñu ko commencé def de mille neuf cent quatre-vingt ba nëgëni si di koy def moo tax mujj dem fenn ba Macky bi mu ñëwee en en deux mille quatorze mu ne moom dootu dootu jël yooyu considération moo ne Macky moomu dañu dañu koy accuser yenn saa ne France la fi nekkal lépp luy marché ah, ah, ah, entreprise française yooyu yëpp daal ñoom la ci jox bopp mani mani hmm. xam nga loolu ñu ko pour contrer rek mais li ci nekk ba nekk mooy chinois yi euh, marché yi leen jël loolu moo tax euh, France mère Turquie ay marché leen jël pourtant France avant moo doon jël yëpp ah hmm. mais léegi Turquie France Chine ak Turquie. Maroc ak ñoom ñëpp a ngi fi. ñoom ñoom Maroc sax tuuti la rek tuuti la ci. Hmm. Maroc boo génnee bu secteur bancaire ci banque yi. Hmm. soriwul ci leneen. kon bokk euh, ñooñu ñoo ñoom la France bañ a gis ñu toppoo wala Macky waaw France lay doxa ba doo doxee waaw France du du chinois yi ni mu fi yaatoo du yaatal turquie ni mu fi du yaatal inde ni mu fi yaatoo ci koom-koom te nit ñi te bañ a def politique politicienne dañoo xam ni France kontaanul ci ci Macky FMI ak Banque mondiale kontaanul ci Macky mais mënaluñ ko dara ndax euh, euh, euh, àddina dox na ba nga xam ni eh, bu ko lu ko FMI bañal wala Inde wala Turquie <laughs> kon xam nga loolu. Hmm. boo too boo ci foofu da ngay am fulaak fayda def li nga war def sa sa réew. lu ko Banque mondiale ak FMI bañal ñeneen mën nañ ko ko nangul. ñoo ko nangul voilà voilà loolu. moo leen metti loolu moo leen metti moo tax euh, Macky eh, xatal leen ci sunu diwaan bi France mer fut ndax sénégalais yi eh, ni nu eh, talal seen loxo chinois te loolu politique gu Macky jëmale chinois yi loolu moo tax loolu am nii bi sénégalais yi bëggee chinois yi préféré ko ci coopération doonu gis ni muy ni muy coppee rek mag yi muy jur am am njariñ loolu la kon bokk bu ne way kii moom màkkee dégg non non wax li ñuy wax mais li wor bu wër mooy euh, France doful euh, ba FMI banque mondiale doful maintenant États-Unis moo ci des te États-Unis ak Biden loo France bëgg rek la fii lay bëgg ndax France moo koy jàppale feneen. Hmm. moo ko jàppale ci Chine moo ko jàppale ci Russie kon moom euh, li li France bëgg rek lay bëgg gisu gisuma fi jàmm bu buy taxaw hmm. moo tax nanu gën a takku gën a booloo gën a ànd nekk benn pour mën a liggéey hmm. ndax ñi yu bari ak société civile day yëngatu ñeneen di yëngal ci bitim réew la jógee dafa am lu soxla ci réew mi te Macky taxaw ci loolu la bu fekkee woon ne Macky mi ngi woon ci deuxième mandat nii bokkee premier mandat la nekk ñu ngi euh, bu fekkoon ne premier mandat am la commencé woon di def ni muy def ah. Mm-hmm. kon kon euh, sakkal na ko pexe bu yàgg mais léegi dañuy muñ ni fekk. bu doxee deuxième mandat rek dafi jógee appui ñu ñu seet ñeneen mais loolu tam problème la ci ñoom ndax Macky du moom rek ànd mi ngi kuréel politique bu rëy benn bokk yaakaar te liggéeyam ak taxawaayam euh, ñi mu àndal dañ ci ànd ànd ak moom d'accord moom pour mu fi Macky bu fi jógee itam liggéey boobu bu Sénégal soxla hmm. Euh, liggéey boobu wuy day jàppale ki nga xam ni moom la ben Benno Bokk Yaakaar présenté pour mën a continuer liggéey bi mais loolu mi ngi suñu kanam. ngi suñu kanam mais mhm. ñu koy. ñu ñu koy di nga wala kii moom France la fi nekk fa France moom xam na li mu li xam. Hmm. Chinois yi xam na li mu xam. Turquie yi xam na li xam waaw. te sax gis nga am na fi à euh, euh, la campagne électorale. bu eh, bu dégg ngeen fi skandal bu fi ñu ne yëkkate woon ci Turquie te way Macky mi ngi jël Sonafar bi eh, eh, wanteer ko Turquie yi xam loolu pour yàq la rek parce que France neexu ko pour Turquie yi ñëw fi France neexu ko pour chinois yi ñëw fi ñoo ñuy ngemb nag pour pour yàq diggante Sénégal ak ak Turquie bu génnee Sénégal ak ak Chine mm-hmm. dañu sonal seen bopp rek ni Sénégal yi na nañu xam nañu fu seen njariñ njariñ nekk te bu ci président bu ci taxawul ni peuple malien génne ci biti mm-hmm. ni peuple malien génne ci biti eh, ba gérer seen mbir ba France euh, nekk ci eh, tagate bi président bu leen bu toppul boobu yoon bi yoon bi Macky tracé te ñu ànd ci ñëpp gis seen njëriñ ku ko toppul na ko gis. jërëjëf Sénégal mm-hmm. du nangu du nangu yëf yi. jërëjëf Ibrahima Sène. Euh, maa ngi lay sant di la gërëm. Mm-hmm. et juste vraiment euh, nga baal ma xam naa ni wax ji taxu taxu koo leer noonu waaw comprendre nañ ndax yaa ngi bitim réew jokkoo bi itam euh, yenn saa yi mu xaw a dagg ñu ciy yi waaye waaye leer na macha allah te tam tax na ñu gimmeeku ci yenn euh, yu bari surtout teewaayu France ci Sahel euh, Mali ak yeneen i réew yi nga xam ni xëy na mu ngi ci teggat ñu ngi lay gërëm bu baax Ibrahima seen bokk ci PIT amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey doon waxtaanee teewaayu France justement ci Sahel ak jóge gamoon ne daf koy jóge ci Mali suñu réew yi bokk ci euh, Sénégal euh, ñu ngi lay gërëm bu baax. Ah, kon mbokk yi seen émission démb ak tay woon ci réew mi FM euh, mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube gërëm jaawo jàll mi ne woon ci jàppandal gi gërëm leen bu baax a baax ci déglu bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm.